barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa mi mun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy mbokk yi. suma yenn sumay donc euh, at mu jot dañuy faral bu gàmmoo gi jege événement bu toll nii ñu faral di woo presse bi pour waxtaan ak ñoom <clears throat> pour won leen également ñun matuwaay ñu ñu jël ak ndimbalu suñu kilifa yi pour ñu mun a assurer kaaraange euh, ñi fi ñëw ak seeni alal parce que loolu mooy liggéeyu police aar aar nit ñi aar seen alal également donc euh, at yi passé def nañ ko fanaa bi mooy ñetteelu yoon euh, moo koy def fii ci Kaolack euh, ren tamit nañ ko def pour wala également ñun disposition yi nga xam ne jël nañ ko pour aar nit ñi ba nga xam ne ni taalibe nit ñi mën a ñëw gàmmu si ñibbiwaat mooy li ne Kaolack du gàmmu Medina bàyyi rek moo fi am moom nag mooy attraction mooy gàmmu bi si gën a mag daanaka mais am na yeneen fukki gàmmu yoo xam ne aussi day am ci biir commune bi te plan de sécurité bi ñuy dispositif de sécurité bi ñuy teg dafa jël en compte euh, gaw mbir na bàyyi également yeneen gàmmu yi nga xam ne ñu ngi am ci biir commune Kaolack alors donc daaw indi woon nañ fi juróom-ñaari téeméeri xale donc juróom benn téeméeri juróomi téeméeri ñu ngi jóge woon euh, euh, groupement mobile d' intervention mooy ñu sol béret yu rouge yi yeneen ñaar téeméeri ñu ngi jóge woon diggante commissariat Ndorong ak commissariat central plus maintenant bu ñu ko soxlaa aussi commissariat commissariat Nioro sax mun na ñëw a appoint donc euh, yees yees bi rek ren mooy dañu yokk yokk nañ juróom-ñaar téeméer def ko juróom-ñetti téeméer ensuite euh, nay am sax yeneen force yoo xam ne dañuy ñëw comme euh, brigade d'intervention polyvalente dinañ ñëw pour dimbali ñu aar ñu mun a ñu mun a aar nit ñi vraiment nit ñi mun a gàmmu ci ci jàmm ak salaam ku nekk ngi ci gis sa bopp delluwaat saa mu am benn benn jafe-jafe donc euh, loolu moo ci moo ci nouveauté bi ma bëggoon euh, surtout wax dawalkatu charrette yi parce que daaw bi ñu defee bilan gàmmu gi daaw euh, am na ñoo xam ne soulever nañu problème ay observation ci charrette yi charrette yi ñëw bu ci daanaka bu jegee ci peggu jumaa ji wala taxaw ci buntu kër yi di indi ay problème accident yooyu donc man dama leen dama bëgg a ñaan suñu mbokk yi dawalkatu charrette yi naam sax dañuy dañu liggéey wante nag xam comme ak xat-xat bi mënuñu bokk ak oto yi bugg a bokk nit ñi aussi même kii donc ren dem leen di ñaan ñoom ñu ñu cantonné fu sori nañ leen délimité ne war nañu ko mun mun dépassé su boobaa dañu mën a liggéey seen liggéey te du am benn jafe parce que dañuy daan seen doole ñoom tamit ñu bañ ñu bañ a def loo xam ne aussi dafay dafay euh, faral di mooy yoon te daal wax ne aussi comme waxoon nañ leen ko daaw affaire yi sottiwul ren moom saret bu ñu ci yàpp dañuy yóbbu fourrière ba gàmmu ba gàmmu waat bi passé du sax duñu ñëw sax ci gàmmu gi saret buñ ci japp nañu indi fi euh, dugal en fourrière gam gàmmuwaat bi jeex donc pour éviter les désagréments yooyu comme dañuy daan sen doole nañuy respecter consignes yi nga xamné wa COMAF ak Ansaroudine ñoom ñoko ko joxe donc ñun dañuy appliquer ñom ñi nga xamné loolu lañu joxe woon donc ñom nañu nañu sori peggu juma ji nañu sori esplanade bi nañu sori vraiment axes principaux yi nga xamné ne nit ñi foofu la jaar pour euh, pour dem ci ci ci jumaa ji donc euh, loolu lay wax sama mbokk charretier yi ñu ñu tënku ci loolu ñu tënku ci loolu

donc euh, am naa plan de circulation bi wax ngeen ko léegi leen naa bi commandant corps urbain bi leen naa Moustapha Diagoura nga xam naa dina dina ci dellusiwaat léegi pour expliquer leen ñi nga xam ne ñu ngi war a ñëw biir Kaolack euh, côté bu ñu mun di jógee rek am nañ am nañ lu ñu prévoir fu yoo xam ne dañ fa mën a jaar te bu ñëpp tënku ci lu aussi du am benn jafe-jafe xat-xat bi fi amoon euh, daawa daaw jéeg daaw heureusement que corrigé woon nañ ko mais ren aussi bëgg nañ ni ñu corrigé woon daaw ñu corrigé ko ren ba nga xam ne ñëpp dinañ ñëw sans te kenn du am benn jafe-jafe incha allah donc xam naa ne Moustapha Diago Roga après dina dina ñëw ci plan de circulation voilà. waaw jaaykat yi aussi waxoon nañ leen ko. keroog dem naa fa ak préfet mais mairie lañ war a lëkkaloo mairie nag moom moom lañ doon xaar pour ñu mën a désencombrer fi nga xam yi nga xam ne euh, organisateur dañu woon fi kenn benn jaaykat du fi nekk jafe-jafe yi ñu ci amoon daaw rek waxoon naa ko ci waxoon naa ko waa comité d'organisation am na ñoo xam ne dañu am seen bu pare loué ko ay jaaykat la non man dama fay borom kër il faut que ñu aussi ñu wax ku mu leer te waxoon naa ko xam ne aussi il faut que ñu si borom kër yi nga xam ne dañuy loué seen seen buntu kër aussi ñu jëm wax ak def loolu parce que aussi borom bon nit buntu këram aussi bu fa loué ay nit dafa kooku day day xaw a jafe génne mais nag dans tous les cas de nañ xam ne fii li nga xam ne comité d' organisation waa COMAF ak waa Ansaroudine ñoom loolu la ñu décidé ñun nañ leen dimbali ba nga xam ne loolu nañ ko appliqué ci terrain bi vraiment ñoom nañ jël seen disposition ñëpp pour que ñu ñu asalaamaaleykum warahmatullah. rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu man la lieutenant de police Moustapha Diagouraga commandant du corps urbain du commissariat central de Kaolack tey dama ñëwoon pour waxtaan ak yéen ci plan de circulation bu autorité bi génne ngir ñoŋal dem ak dikk bi gamu période gàmmu annuel Medina Baye de Kaolack plan bi buñ ko càmbaree dinañ gis ni ñeenti axe la concerné bu ci njëkk mooy ñu jóge Fatick Gandiaye di ñëw Kaolack ñoom am nañ possibilité jaar par ñeenti yoon bu ci njëkk mooy route Mérignac génne saam dem intersection Mariama Sarr jaaree rond-point nouveau lycée buñ jëlul boobu yoon mën nañ continuer ci route nationale numéro 1 bi bu ñëwee ba garage Dakar fu nekkoon ci station Total bi ñu jël seen càmmoñ dugg avenue Cheikh Bamba jaare ñetti guy jénnee tabangoy dem Medina Baye wa ilaa ñu continuer ba tey ci RN nationale bi ñëw ba cœur de ville jël seen càmmoñ ci yoon buy jaar buntu crédit mutuel intersection raay ba génnee Jaleñ génnee wetu kër ancien maire Kaolack Mariama Sarr jël seen càmmooñ dem Medina Baye. naka noonu it mun nañu am ñeenteelu possibilité bi mooy jaar tout droit ci route nationale numéro un bi romb commissariat centrale bi ñëw ba ci banque de l'habitat bi jël seen càmmoñ xàll woowu da leen yóbbu directement vers Medina Baye. pour ñi nga xam dañoo jóge Gosaas ñoom dañuy lelu seen côté càmmoñ jël yoonu gaawaan beeg saam bi génn jee Valdiodio Ndiaye lycée ba ñi nga xam dañoo jóge Tamba Kaffrine ñoom benn yoon rek lañ mën a jaar muy jël tout droit RN national bi ñëw ba ci banque de l'habitat jël seen ndeyjoor dem Medina Baye ci lu amul benn jafe-jafe ñuy jigee Nioro bu ñëwee ba ci pont Noiro ñu tuddee ko léegi bon Serigne Bassirou Mbacké bu ñëwee ba ci chambre de commerce bi am na ñaari possibilité bu ci njëkk jël seen ndeyjoor génne stade Lamine Gueye jaar wetu tribunal jëlaat route nationale bi génn seen ndeyjoor dem Medina Baye wala bu ñëwee ba ci chambre de commerce dañuy continuer tout droit dem ci arène nationale bi génne seen ndeyjoor waat continuer ba ci intersection wu banque de l'habitat bi jël càmmoñ dem tout droit Médina Baye donc mbokk yi loolu mooy yoon yi nga xam ne moom la préfet xàll pour ñogal dem ak dikk bi ci période gàmmu Médina Baye bi mbokk yi naka noonu it bu ñëwee ba biir Médina Baye kilifa gi dafa jël ñaari yoon def ko yoon boo xam ne bell wàll kese la muy boo jegee BSS ñëw kër Mariama Sarr ñëw ba aj bi foofu dugg rek moo am amul génn naka noonu it rond-point Orange kër ndem si yàlla Cheikh Ndiaye Baye Fall foofu benn yoon la pour dem Medina Baye oto yi duñ mën a génn dugg rek la ñuy def pour génn Medina Baye dinañ am ñaari possibilité muy xàll wu jóge cœur de ville jaar ba ñëw jaleñ boobu dina def dugg ak génn waaye comme ni ngeen koy xamee tali bi am na luy tax dem ak dikk bi di am ay jafe-jafe muy oto yi nañuy taxawee ci kaw loolu njiit jël na dogal ke ni yii may bëgg lim ci ay bërëb aaye nañ oto yi di fa taxaw muy oto bu yàpp ay nit wala bu yàpp ay marchandise foofu dem rekk moo fa war muy route national numéro 1 bi kenn waru fa taxaw naka noonu cœur de ville jëm commissariat ba génn commune Kaolack kenn waru fa taxaw xàll bu ñuy tuddee El Hadj Abdoulaye tamit kenn waru fa taxaw dañu ko aaye de yoon buy jóge garage Nioro dem Pont Noiro génnee Koutal dem ca biir foofu tamit oto waru fa taxaw waaye nag oto yi pour ñu taxaw noppalu décharger wala def seeni bëgg-bëgg mun nañ dem ci yii may bëgg lim ci ay béréb. muy fu ñu tuddee zone piétonne moo xam ne foo xam ne ci jotu jumaa ja la ne nit ñi rek ñoo am pour dox fa kilifa yu mag yi may nañ leen seen oto mën a ñëw ba foofu foofu pour ñoom rek lañ ko jagleel ale yi ñuy wax Émile Badiane ca wetu lycée Valdiodio Ndiaye foofu mën nañ fa taxaw di yàpp ak yebbi terrain bu nekk ginnaaw kër gan ñu naan ko terrain yi mbax foofu tamit oto mën nañ fa def bérébu taxawukaay noppalukaay bu mujj ci béréb yi mooy parking bu yaatu bu nekk ci biir kër de Ville boobu ubbi nañ ko pour oto mën fa di dallu mën fa di noppalu mën a def seen yitte tamit. mbokk yi jàngatu organisation daaw daf ñu wan ni sunu mbokk dawalkatu sareet yi ndaam dañuy liggéey ñu rafetlu ko lool. di jàppale citoyen ci dem ak dikk waaye am na foo xam ne bu ñu fa yemoon fa lay dem ak dikk di gën a ñoŋee parce que tali bi day xat te bokk ak ay woto du yomb ren boroom dëkk bi dafa dogal que ni oto sareet yu faral daan jóge coof ak ñuy ñëw bërëb bu ñu tuddee jullikaay foofu la ñuy taxaw wàcce seen passagers yi ñu dox ñëw ci bërëb bi loolu am na solo pour ñu leeral ko fàttali ko ñëpp. ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di feddale kóllërey polis ak commissariat centrale bu Kaolack te di wax ni suñu liggéey dinañ ko gën a ñoŋal pour ñit ñi ñëw ci jàmm gàmm ci jàmm delluwaat ci jàmm jërëjëf Je suis le commissaire de police euh, à je suis le commissaire central euh, chef du service régional de sécurité publique de Kaolak. Comme euh, il est de coutume, euh, chaque année à l'approche du Gamou, le commissariat central tient un point de presse pour informer du dispositif de sécurité mis en place par les autorités et également décliner et vulgariser le plan de circulation puisque comme c'est un événement majeur, c'est devenu un gamin international, qui ne s'arrête pas tout simplement à Médina parce qu'il y a 10 autres gamous qui se tiennent dans la commune de Kaolak. Donc euh, il est tout à fait normal que nous prenions des dispositions sécuritaires euh, spéciales pour pouvoir euh, gérer l'événement, sinon gérer même les événements, je voudrais dire. Et en dehors du dispositif de sécurité, il y aura un plan de circulation qu'on va également vulgariser pour permettre euh, à tous les, pèlerins qui viennent ici, également euh, à tous les sympathisants du Gamo de pouvoir circuler librement à Kaolack sans vraiment aucune difficulté. Alors, donc euh, pour ce qui concerne le dispositif de sécurité, l'année dernière nous avions engagé 700 éléments. Mais nous sommes montés en puissance compte tenu du fait que les fidèles augmentent chaque fois. Cette année-ci, on va engager 800 éléments pour la couverture sécuritaire du Gamo des, des je voudrais dire. Mais euh, l'attraction majeure sera le gamot de Bay. Donc, euh, en dehors des 200 éléments du, corps humain, composés par le commissaire central de Kaolok et le commissariat d'arrondissement de, de nous avons engagé 600 éléments du GMI, donc euh, ceux qui sont en béret rouge. Donc, ils seront là cette nuit et nous allons commencer à les déployer à partir de, de demain à 8 h. Même en dehors de ces forces également, il y a d'autres les éléments de, euh, de la sûreté urbaine, c'est que ceux qui sont en civil vont être engagés. Également des éléments même de la brigade d'intervention polyvalente. Puisque maintenant, un événement majeur comme ça, nous prenons, comme on dit, le tour par les cornes pour engager en tout cas toutes les forces pour éviter vraiment qu'il n'y ait euh, pas de problème. Et vraiment, nous souhaitons, en tout cas, nous allons travailler de sorte qu'il n'y ait aucun problème, que les pères puissent venir assister au Gamon et repartir tranquillement sans aucune difficulté. Alors, euh, il y a quelques années, on a eu quelques difficultés sur la circulation, mais heureusement, l'année dernière, ça a été corrigé. Donc, le gamme de l'année dernière, nous, vraiment, nous l'avons vécu, nous avons géré la, sécurité sans vraiment aucune difficulté. Alors, cette année-ci également, le même dispositif de l'année dernière va être euh, reconduit. En tout cas, nous espérons qu'il n'y aura pas de problème sur la circulation, sur la mobilité, que cela soit sur les RN1 ou RN4 également, dans, les environs de Medina Bay. Je pense que les dispositions que nous avons prises vont dans ce sens. Alors, euh, quand on a fait le bilan de Gamo de, 2023, il y a eu quelques observations qui nous ont été faites. C'est-à-dire que euh, certains avaient un peu souffert de la circulation des, charitiers. Bon, malgré les efforts qu'on avait déployés pour vraiment les limiter, pour les contenir, il y a eu certains euh, qui sont parvenus à entrer presque jusqu'à l'esplanade, ce qui a causé quelques désagréments. Mais pour cette année-ci, vraiment, c'est le lieu de, lancer un appel. Parce que là, là on, va, on va vraiment suivre cette fois-ci. On leur a demandé vraiment de ne pas s'approcher euh, des, lieux du Gamon. Donc la zone va être délimitée. Mais si on prend un, un on va mettre la carrément en fourrière. Vraiment, je pense que c'est la meilleure méthode. Parce que ça, ça crée des problèmes de euh, même pour la mobilité des véhicules, c'est des chères qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont rien du tout. Si voilà, <laughs> une vous, heurte, c'est le problème qui vont se poser. Donc on va, on va les inviter vraiment à, se limiter très loin dans la zone où, seront, où elles seront cantonnées. Alors, donc... Euh, Est-ce qu'on pense que ça va le de... Voilà, donc à, l'issue du point de presse, le, commandant du corps le, lieutenant Moustapha Diagouraga, va projeter le plan et va faire le commentaire du plan de circulation. Le montage a été fait et tout. Euh, par rapport au plan de l'année dernière, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Hein. Vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Mais il aura l'occasion de faire la présentation du plan de circulation pour le Gabon, ce, n'est pas aujourd'hui que nous l'avons commencé. Il y a presque dix jours, nous avions commencé par, euh, des patrouilles, par des opérations de sécurisation, puisque il y a les quartiers qui jouxtent Baye, comme les quartiers de Tchofak et autres. Bon, souvent, c'est des quartiers où les malfaiteurs se replient. Donc, euh, depuis quelques temps, nous conduisons des opérations de sécurisation pour au moins, euh, si on ne peut pas les chasser quand même, pour au moins limiter les dégâts. Et vraiment, ces opérations ont commencé à porter leurs fruits. Euh, donc c'est le seul point que je voulais ajouter à ce que j'ai dit euh, tantôt. barhamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujël faydu tijan jox ñu ñuy